événement yu mag yi bu amee dañuy ñëw fii gannaaw bu ñu réunion ak euh, sous-préfet préfet ak gouverneur ba peut-être mu am yenn problème yoo xam ne jotuñ ko satisfaire la ñu ñëw ci man en tant que ministre de l'intérieur fii au ministère ñu waxtaan ak ñoom point yëpp wax dëgg yàlla point yi ñu siloon yëpp comité bi bëggoon ko euh, administration taxaw na pour pour pour fajal leen ko donc vraiment à ce niveau amuñ ci benn crainte pour édition bi di ñëw. waaw loolu am na bi gën a bu ndaje mu mel nii depuis que président lancé initiative bi samedi bi nga xam ne moo jiitu ci mois de janvier mu nit ñëpp dem kenn ku nekk di nettoyer sa kër te gisoon ngeen wax dëgg yàlla aussi implication maire Bamba Fall ci parce que quand même daanaka commune une bonne partie fa la fa la nekk donc dañuy continuer di sensibiliser pour que nit ñi tenir compte ci loolu donc certainement dina am ay poubelle tout autour pour que saleté bi en tout cas ñu bañ bu ñu paree di defaat yeneen journée de de nettoyage yaakaar naa ne bu ci ñëpp jàppee kenn ku ci nekk du soxla loolu.